mbégte moom la ñu bëgg a xam. kontaan naa kontaan trop te maa ngi leen gërëm di leen sant bu baax a baax képp ku taxaw ci maa ngi leen gërëm di leen sant bu baax a baax sëy bi nag ah yàllaa ko yàlla fi yàlla sëy bi barkeel lépp lu ñu bëgg a sëy sëy bi yàlla ko yàlla defal ma ne sama doom yi da maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. mais lak ban doom la. ban. ban doom la lak ah, yow mi papaam ban doom la maanaam. doom buy dundee ak papaam nan la. di tout lépp la sama lépp la xale bi sama papa laa ko tudd donc sama lépp la wallaahi li azim waaw. Papis maa ngi lay bëggee papa ngi nii taxaw dañ lay félicité heure ménage lay wax yàlla na la sëy bi jig ban réaction nga amee mbooloo mi ak nit ñi ni ñu ni ñu génne ni tey. waaw mais sant yàlla rek sant yàlla rek Babacar parce que tey jàmm bu nekk li ngay ñaan yàlla tey yàlla def na ne tey tey la yàlla tudd na tey la ñuy soxna alhamdulilah la ñu mën a wax. sant waa Géejawaay gi yëpp bàyyiwuñu kenn ah ku dégg lii kuñ ko wax ak kuñ ko waxul yëpp ñëpp ñëw nañu ah parce que ñun jiwuñu leen lu xam ne lu ñaaw la dañ leen ji lu baax rek mais ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. paa bi nee na ma nee naa ko Lac de Guiers ban doom la ci doom yi mu ne ma lépp maanaam daal dara bàyyiwoo ko ci moom. ci baax waaw moom sama papa la mooy sama xarit papam lu ma tuddee mu nekk sama xarit nekk sama lépp. moom doomam yëpp la bëgg ah doomam yëpp ay xaritam lañ yaa ngi dégg kon donc ñun ay doomam lañ dañ koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam yàlla may ko wér ak gudd fan ci barke Seydina Muhammad moom du wax ci ay kii sax média sax comme ko ci moom que lii nekk la rek Babacar da dut moom moom sincèrement c'est la première fois ma gis mu wax nag dinaa am laaj bu ma la laaj absence bu maire bi parce que ku nekk boo sañoon booy takk soxna sa waajur day teew tey fekkewu ko loolu lu mu def ci yow ban yëg yi ngay am ci loolu waaw bu ñu fàtte ne dañoo war a sant yàlla marchandise bi yàlla la dafa noonu du ko fekk kon donc dañuy sant yàlla baax a baax dañuy sant yàlla delloo suñu xel ci yàlla wax na ne yàlla moo tudd ne bés bi du ko fekk tey man bu ma sañoon bu doon sama bépp dëgg dëgg dëgg dafay fekk ba fekk fi ay sëtam kon donc lii bu amee dañuy delloo suñu xel ci yàlla ñaanal ko fa mu nekk nii xolam sedd ci bés bi nga xamante ne moom la doomam jël soxna da nga koy ñaanal yàlla yàlla na ko ci àjjana yi gën a kawe ci barke Seydina Muhammad mais lii moom yóbbante na liiru jaan du xam nga liiru waaw sama liiru sama grand la neexee fanaan ni de liiroo la ko yóbbante non liiru day mbala xam nga liiru moom suñu grand la moom moom nu mu jógte rek noonu la mais maa ngi nuyu ñëpp ah bàyyiwuma kenn ah képp koo xam ne da ngay bëgg la déggee numéro 2 waa géej waay ñëpp. càndum eh, nee ma grand càndum nee na ma dem fanaan. fanaan fanaanu ma ah? ci kanam. soxna su baax kon dañ koy ñaanal rek mu am soxna su baax su ko féete fu ko yaayam féete woon et puis mu jik ko lool ndaxte nekk mbër takk soxna dafa jafe lool ci ku jigéen. ndax bu baaxee ñu ni jig na la boo bëree daanu ñu ni jabar ji jigu ko kon nag ñu ngi koy ñaax rek mu muñ bu baax xam ne nekk jabaru mbër lu gën a lu metti la lu metti la macha allah jërëjëf